ñu am mbégte kontaante di àndaat ak yéen ci suñu dars jawaahirul maani wa bulughul amaani fi fuyuudi sayidi abil abbas ahmad attijaani radiallahu an tey nag ñu war a ànd ak yéen ci suñu ñeen fukkeelu dars ak ñett ci xaaj bu njëkk bi ba tey ba tey ñu ngi toll ci laaj yi ñuy laaj mawlaana cheikh tijaani radiallahu anhu yenn ci ayatul qur'aniya yi nga xam ne jafe naa dégg lool mu yombal dégg gi lool nag suñu dars bi weesu ñi ngi taxawoon ci xadis bi nga xam ne mawlana cheikh radiallahu anhu ñi ngi ciy jàngale maratib yi nga xam ne mooy maratibu waliyu yàlla yooyu nga xam ne yonantu yi sax dañ leen di ñee shuhadaa yi dañ leen di ñee ci biir loolu ñu ngi doon jàngale ni qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila malakul mawti alladi wukkila bikum ak allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha mu di ci jàngale ni am na ci ndindeef ak yàlla yi ñoo xam ne yàlla ci boppam mooy jël en charge ci rocc seen ruxu waaye am na ci ñoo xam ne daf leen di wakkil ki nga xam ne mooy malaaka boobu di rocci ruuxu yi muy Azrail nga xam ne moom mooy rocci ruuxu jaamu yàlla yi bu ko defee nag mu ne ku njëkk ke yàlla jëlal boppam charge bi rocci ruuxam tekki hut moo gën ki nga xam ne moom la tawkiil tawliya mbir mi ci Azrail alayhi mu ci jàngale ba wone ni yàlla am na ay jaam كم حديث بنيكو ينتبي صلى الله عليه وسلم جانجله إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من الله عز وجل نيالا أمنا أي جام يوقمن دنيو أي ينط دنيو أي شهداء شهد شهيد مويكو خمن دفا مارتير معنام كده خري ولا تي لك ولا تي يويو yu mel noonu nga xam ne borom xam-xam yi lim nañ ci yu takku euh, mu ne ñooñu nag shuhada yi dañ leen di ñee yonantu yi dañ leen di ñee ndax place bi leen yàlla di teg xadis boobu nag place boobu yowmal qiyaama la xadis boobu teg telewut ni wali yu yàlla yooyu ñooy gën yonantu yeeg shuhada yi waaye yàlla daf leen may may boo xam ne mayu ko yonantu yi mayu ko suhadaa yi te loolu ci biir yaatuwaayu e, e, e, ngërmandeg yàlla ak yërmandem ci la nekk wa rahmati wasiat kulla shay la yàlla waxoon ci alquran kon loolu lu am solo ñu war dalee nag fi ñuy waxee mooy kiy topp téere bi te téere bi nga xam ne taxqiqu cheikh Tidiane Ali Cissé ataalallahu baqaahu muy imam bu Medina Baye téere bi mu taxqiq ci Jawahirul bu dee moom ngay topp ci juzul awal bi maa ngi tollu ci page trois cent quarante mi ngi ne wa amma nabiyuuna daal yonantu yi alayhim asalaatu wassalaam li quwati maqaamihim ala taxamuli abaai alxadrati alilahiya seen maqaama doole bim am ci ñu mën a xenu li nga xam ne moom mooy coonoy péyeb yàlla bi wa talaqi kullama yabrudu minha min at-tajalliyaat ak daa di gàttandu lépp loo xam ne mi ngi jugee ci péyeb yàlla bi ci ay tajalliyaat bi ma yutihi al waxtu te waxtu jooju ñuy dund waxtu boobu la muy joxe ci ay tajalliyaat ñu koy gàttandu te attan nañ ko min kamalil adab ñu di ko defee ci matuk teggin fa hum ñoom saabituuna kal jibaali raasix dañ ci ànd teggin goo xam ne dafa mel ni dañuy sax kom ni montagne gi di saxee ci suuf si dëgër lool sax laa tudd hishuhumu tajalliyaat yooyu tajalli di jugee ci borom bi subhanahu wa taala du leen maanaam du leen du leen déranger du leen indil problème wala tujaizu wala tujaizuhum awaasiful mu'dalaat te itamit ngelaw ak yi nga xam ne ñooy gàllankoor yi du leen déranger benn yoon fa lam yuharrik lahum alxaqu hadihi almaziya loolu moo tax suñ borom subhanahu wa taala jeglelu leen boobule may istanasa biha sigaarul ahbab ahbab may yooyu nga xam ne ñi ko jagoo ñi ñim ko jagleel mooy ñi nga xam ne ñooy soppeem yu ndaw yi ilman min alxaqi subhanahu wa taala ngir xam gi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala xam na ni anna maqaamahumul aala wa markazuhumul asma ne maqaam ak yonantu yi ak shuhada yi ñoo gën a kawe te seen taxawaay ak seen saxuwaay moo gën a sell te moo gën a kawe ngir lan mu ne bi mastamala alayhi min ulumi min uluwil adab ndax liñ làmboo ca teggin gu kawe wa maarifatihim bi azamatihi wa jalalatihi ak xam giñ xam yàlla ci màggaayam gi ak eh, rëyam gi ak wegeelam gi laa yatanazzaluuna ila tawqi'i hadihi almaziya ñooñ duñu wàcc mukk ngir di dajeek yooyu la may fa innama xaasiluha min shahawati nufuusi allati hiya mulaatafa min alxaqi li duafaai xalqi mu ne may yooyu yàlla di defal xam ne ñoom ñooy waliyu yi ba yonent yi dafay jugee ci li nga xam ne mooy bànneexu bakkan yi nga xam ne yàlla daf leen di ñewantal ngir seen ak néew a wa amma al akabiru al aali aaluun way ponkal li nga xamne ñu kawe lañ fala tarda minhum wala tarda lahum fala tarda do gërëm minhum ci ñoom wala tarda lahum do gërëm ñel leen kama waqa fi ba'd al kutub al munazzala kom ni nga xamee non la roté ci yenn téré yàlla wacce anna allah taala ne borom bi tabaraka wa taala fiha wax na ci téere yooyu ne ma lil aqwiyaai wa shahawaat ana bànneexu bakkan ak ñu am ñu capacité ci wàllu yàlla wa innama <clears throat> abaxtu shahawaata li daafati xalqi yàlla nee na maa ngi may permettre li nga xam ne mooy bànneexu bakkan ñi ko war a jànkuwaan teg mooy ñi nga xam ne dañoo faible yastainuuna biha ala taati ci sukkandiku ngir mën ma top di juum di balu yàlla yàlla di leen baal wa shaahidu zalik lii seede loolu mooy wa huwa uluwu maqaami nabiyin mooy kawek maqaam ak yonantu yi maa waqaa fi qadiyati ibrahim li nga xam ne tàbbina ci qadiya boobu nga xam ne romb nañ ko muy qadiya yonantu yàlla ibrahim alayhi salaam xatta zujja bihi fil minjaniq bañu daa di koy dugal ci mbaq mi maqzuufan ila naar ñu daa di koy sànni ci safara allati bi nga xam ne sha'nuha maaruf mbiram safara soosu luñ xam la mooy rek <clears throat> li yoon ci yàlla ibrahim defoon ak gaayam ya wax ak ñoom ci ay kàddu ba xamal leen li ngeen di jaamu di ay xërëm amut benn njëriñ yàlla rek lañ war a jaamu ñu jël jëflante moom jëflante googu nga xam ne moom lañ jëflante woon moom du jar ñuy tàllal xissa boobu fii moo tax mu ne allati sha'nuha ma'ruf safara soosu nga xam ne ci lañ sànni woon Seydina Ibrahim muy te te mbiram safara si luñ xam la fama anna onkul benn yoon binniwul wala staxaasa mësta xettaliku subuutan li xukmi tajallihi fi dalika al waqt sax ci mën a gàddu mën a tinu li nga xam ne moom la waxtu woowu doon joxe ci tajalli benn ñaareel bi wa wafa in bi aadaabi tajalli ak matal te teggin yi nga xam ne mooy digganteem ak tajalliyaat yooyu fa taarada lahu l aminu jibril alayhi salaam fi l jibril ñëw daal koy gaaral ngir bëgg koo dimbali bane ko alaka xaaja ya ibrahim ndax am nga hit soxla yow ibrahim فإنه يعلم أن إرسال الأمين إليه لينقذه من وحلته إنما كان من عناية الله به ورفعته مقامه لديه te boobu la jamono yoon ci yàlla ibrahim xam na ni yàlla bu yónnee kim gën a wóolu ci ay malaakaam muy jibril daf ko yónni ngir mu xettali ko ci jafe-jafe yooyu mu nekk tey tamit loolu tegtalewul dara lu dul yàlla daf ko bëgg a teggil coono yooyu ngir maqaamaam bu kawe fa moom yàlla ndax yàlla bu leen fàtte ni jàpp na ibrahim def ko muy xarit wattaxaza allahu ibrahima xalila wa annahu in maala ilayhi fi taxliisihi lam yakun dalika minhu suu adab yonent yàlla ibrahim alayhi salaam bu toppoon jibril ca lam koy woo amul benn ñàkk teggin bu ci ne wala nxitaatan li rutbatihi amul benn wàcc bu muy wàccu ci martaba maanaam lool lu tax ñu dégradé ko mukk ndax di ngi ci njub ba tey ndax jibril yàlla ko yónni li annahu talaqa minnata alxaqi ndax bu boobaa bu ko nangu woon dafay nekk koo xam ne dafay dajeeg may ak yàlla xaytu waradat alayhi ba mu rotal ci moom walakin lamma ra'aahu تنزل تنزلا عن علو المقام وتنزيلا عن كمال الأدب وتلقيه لمنة الحق بالفرح والقبول على حكم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم برخصه فاقبلوها من أيون الله إبراهيم عليه السلام لم جس كي واتش غوغ مانام رف دبو غا خامن رف دونكو جبريل مانام ناك نياكا نانغول جبريل لامي ساكو تي موم لم تي جيس تي يكتي كو مقامه اك لم تي جيس تي واتش ci teggin goo xam ne da ngay ànd ak teggin ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ak lam ca war a dajeel ci ay mayu borom bi subhaanahu wa yi nga xam ne bu dajeeg moom dina ànd ak teg nangu li nga xam ne mooy àtteeg borom bi subhaanahu wa taala te loolu mooy wàcc ci waxu yonentu bi sallallahu bi mu wax ni yàlla dafa daf leen di sarax ngir yombal lal leen na ngeen nangu sarax bi mu leen di sarax boo demee ci آه، مسلم إننا حديث في كتاب صلاة المسافرين صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة صراح لب لن يالا صراح نين كنا نقول صرح بوك موتحنك <clears throat> من وكال حكم الواقع في حكمه مويمني بن أتبو قمنه daf dafay tombel ak atteg yàlla ndax rafdu bi nga xam ne moom la rafdu jibril loolu lay tombel li muy tombeel mooy waxu borom bi bala in tasbiru wa ah, euh, maa ngi ci jafe lii mën na maa waaye nag xalaat naa ni lii di ma xettali yàllaa ko gën a gaaw naa dellu ci yàlla moo tax buur ne balaa li fi ne kay mooy in bu ngeen muñee wa tattaqu te ngeen ragal yàlla laa yadurkum du deefu leen lor mukk deefu leen lor maanaam tey yow Ibrahim bu fekkee muñ ga ba pare ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy yokk muñ gi bu ragal yàlla amutoon doo xalaat yàlla sax bay mëna muñ ngir topp loolu nga xam ne mooy ndigalal borom bi subhaanahu wa taala loolu nag <clears throat> di lu am solo lu jaam yëpp war a bàyyi xel Mawlana Cheikh Tidiane nag ne li Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam def dafa tombeeg waxu yàlla boobu subhaanahu wa taala bi muy wax ni wa in tasbiru bu ngeen muñee wa wa wa wa wa tattaqu ngeen ragal yàlla laa yadurkum kayduhum shay'a pexey nooni munuñ leen lor ci dara inna allaha bima yaamaluuna muhiit borom bi subhanahu wa taala aji léem lëmu ci la nooni di def muy lu am solo lim li mu jàngale foofu ci beneen aaya bi mu ne bala in tasbiru wa tattaqu wa yatuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi xamsati alafin min almalaikati musawimin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بون بوين موني ترغل يالا وياتيك وياتوك مدكل لين من فورهم تساس هذا يو إلى ملاك يو قمن يمددكم بور يالا دينا لين تبل يمددكم ديسنا تبل ربكم سن بروم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين juróomi junni malaaka yoo xam ne dañuy ñëw ñu tàggat leen ñu taxaw ci seen sàppe rang jub ngir faagaagal nooni mu ne loolu nag yàlla defut ko lu dul bégal leen ngir dalal ci seen xel te ndimbal moom du jóge fu duhut ci yàlla mi nga xam ne mooy ki noot ci nguuram mooy ki nga xam ne mooy aji xarala ci nguuram fa inna haadihi fa inna haadihi daal nag lii ñuy wax alaamatu nasri mooy màndargay ngañaay bu yàlla di defal jaamam wa buluuxil farax mooy màndarga gi jotaleeg jaam gi ak mbégte wa suruur ak kontante li dox fi maqaami saxaaba ngir néew kàttan ak maqaamu saxaaba yi fa innahum laysu bi ambiya ñoom duñ ay yonantu fa awalul aaya njëlbeenu aaya bi mawqifu duafa mooy taxawaayu ñi nga xam ne ñoo néew kattan mooy in tasbiru wa tattaqu min al ahbab xaytu yulaatifuuna fi haddati l xaq mooy duafa yi nga xam ne ñu ngi bokk ci soppe yi te nga xam ñooñu nga xam ne yàlla dafay ñeexantal ak ñoom ci péyam bi daf an yu yutiquhu ngir jañal leen li nga xam ne attanuñ ko charge leen li nga xam ne seen ruxu attan na ko min fiqalil waaridi ci disayu waridu borom bi subhanahu wa taala mune wa akhirul aya fin wa aya bi nak huwa mawqifu akabiril alim moy taxawaayu ñi nga xamne ñoy ponkal yu kawe yi fa innahum la yubaluna bi ghayri xeyrillah ñom faale wuñ lu faale wuñ lu yàlla faale wuñ la wa lima kana al mayl ila ar rukhsa tanzilan an al akmal fi al adab ba nga xamé ni nak jëng jëm ci yombal googu yàlla yombal dafay nekk loo xam ne wàcce sa bopp la ci sa mat ak teggin wa te moom wafaauhu bi kamalil adabi fi lxasrati l te loolu mooy matal sa mat matal kóllëre gi dox sa digganteeg sa borom ci matal teggin gi nga xam ne moo dox sa digganteeg péeb yàlla bi wa kamali taxamulihi li abaayi ak mat gi ngay mat ngir mën a xenu coono yi la yàlla di teg xataa la tatarraqahu lazatu nafsin ba nga xamee ni bànneexu bakkan dootu a fëgg say buntu wala shahawaatiha du caagin ay shahawaatam wa in kaana fi dalika xatfu anfihi <clears throat> taraka fa lidalika ajaabahu bi qawlihi amma ilayka fala mu ne ci biir loolu ngay xamee maanaam bu ngay lépp loo xam ne daal jaam bi daf koy def mu koy delloo ci bànneexu bakka rek day gotti xormaay péye bi yàlla bi subhanahu wa taala mu ne loolu moo tax mu tontu ko ne ko amma ilayk li jëm ci yow jibril fala soxlaw ma ko loolu moo tax yoon ci yàlla ibrahima tontu ko lool ay maolana cheikh tidiane ne lim ci namm mooy lam yarda at tanazula li shahawati nafsihi bugut a wàcc ngir bànneexu bakkanam wa in kaanat min minnati lxaqi donte ka wàcc boobu muy wàcc si ci mayak borom bi subhaanahu wa taala la bokk walam yarda illa alwuqufa fi ala maratibi al adab te nanguwut mukk moom moom loolu Cheikh Ibrahima moom Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam lu duhut taxaw ci li nga xam ne mooy martaba yi gën a kawe ci teggin te loolu mooy lan inqitaahu ila allahi an kulli wijhatin min ahwali nufus dagg mboolem anam bu bu ko jublu rek ci anam ak bakkan te nga xam ne dafay dox ci digganteem ak boromam wa in kaana fi dalika xatfu an fii wa akkada dalik doon tegte sax bak maanaam daf ci daf bakkanam daf ciy des moom dana ko nangu loolu nag li ko firndeel mooy waxam ci mu wax qaala lahu salhu qaala xasbu min su'aali ilmi ilmuhu bi xaali jibril daf ne ko laajal sa borom kon comme que nangoo ma kettali la waxal sa borom mu kettali la mu ne ko man doyloo naa xam gim xam situation yi ma nekk wëlees ma di ko ñaan mu xettali ma loolu boo demee ci kashful xafa ko mu zilul ilbaas lil aj ajaloo nii di ko fa fekk euh, mu ne fa ida arafta hada boo xamee lii nag arafta bu'da ma bayna maqaamin maqaamaati nabiyina min maqaamil maxbutin boo xamee lii rek di nga xam distance bi dox ci diggante yonantu yi ak ñoom ñi ñi ñe wa anna waqaa min tamannihim li maqaamaati maxbutin ak li nga xam ne moo tabbi ci euh, mébét bi ñuy mébét ci maqaam ak ñi mimma laxiqahum min alchafaqa ci li leen dab ci ak cofeel ala umamihim ci seeni xeet wa atbaacihim ak seeni topp wa qarabatihim ak seeni jegeñaale allaa yataxammalu abaa dalik ngir ñu bañ a xenu yooyu la abaa dalika almaqaam coonoy boobule maqaam mu yowm alqiyaam wala yusbituuna lahu te munu munuñ koo dékku ويكثر أنينهم وبكاءهم تبوا سني دين سني جوي دفع دادي بري وقد عرف ما في البشرية من الميل إلى الأقارب تقمن لا نكتي تي كي جنگ جم كي أجيجن عليهم والأحباب أكي صبهم والشفقة عليهم أكتفل بمي أم كي أي بوكام كي جيجن عليهم فيما يحل به من البلايا والنقم كي bépp balaa bi wàcc seen kaw ak bépp mbugal bi wàcc seen kaw yërmande bi ñuy am fa in kaana saahibi albashariya bu fekkee maqaam ak <coughs> nga xam ne maqaam ak nite rek fii aalal maqaamaat moo féetee mu mi ngi bokk ci maqaama yi gën a kawe fa li haada loolu moo tax uxbitu mi man laysu bi ambiya ñu ñee ñi nga xam ne duñ ay yonantu li kawnihim laa atbaa lahum ndax ñoom amuñu am topp yaxshawna alayhim min shiddatil waarid topp moo xam ne dañuy ragal ci ñoom tar taru li nga xam ne mooy rot bàyyeekoo ci borom bi subhaanahu wa taala keroog bis boobu mu ne wa min al mazaya bokk na ci may allati yi nga xam ne waadana biha fi sadril jawaab e, yàlla dëgal nañu ko ci boobule tontu mooy ma waqaa li omar wa ammar li dal li li yàlla tàbbiloon ci saydna omar ibn alxataab radiallahu anhu wa saydna amar ibn yaasir radiallahu anhuma duunahu salallahu alayhi wa sallam mu ne fa innahu qaal li omar yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni maa salakta fajjan illaa amul benn yoon booy soobu lu duut soobu na yoon bi ci def mu wax ci loolu boo ci buxaari mi ngi fa boo demee ci euh, euh, mu wax ci ammaar ne inna allaha asamahu min cheytaan laa yuwaswisu ilay yàlla musal na ko cheytaane ba du ko jax-jaxal loolu lafzu boobu noonu ki def haamisu téere bi nee na gisut lafzu bo lafzu boobu waaye gis na ñu so kii nga xam solo nañ jëlee ci xasan mu ne Ammar daan na wax ni ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex ak jinne yeeg nit ñi mu yónni ma ci benn bi'r mu yónni ma ci biiru badr maanaam teenu badar ma daje fa ak ci melo doomu aadama mu bëreeg man ma bëreeg moom wa jaaltu daqiquhu bi fihri indi aw xajarin maa yi ma commencé di ko dóor aduqu ci benn <coughs> fiir bu ma yoroon wala ay doj yu ma xeer yi ma yoroon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni amaar laqiya sheytaanu inda albiri fa qaatalahu Ammaar daje nag cheytaani ci biiru ba ci teen ba xeex moom fa ma ada an rajaat an rajatu fa axbartuhu fa qaala zaaka cheytaan mu ne ba may ñibbisee rek ma xamal ko yonentu bi sallallahu alayhi ne doon am ku joteloon mu ne ko kooku cheytaane la loolu boo demee ci majmu zawaid di nga ko fa fekk muy lu am solo niki noonu walam yakun zalika fi rutbatihi sallallahu alayhi wasallam ñu def benn tan bii wax naa leen léeg-léeg boroom xam-xam xadiis yi ne xadis bi wérut waaye moo wax leen ni Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu bépp xadis bu mu indi rek wér na ndax moom dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi du tàqalikook ñoom benn géndeeku te dafay laaj yonentu mu di ko wéralal ay xadis kon lépp lu mu rotal ci téeréem bi ci ay xadis rek wér na donte que ñeneen ñi ñu ngi koy jam Eh, wa lam yakun dalika fi rutbatihi sallallahu alayhi wa sallam te gis nga Omar ibn al-Khattab ak Ammar ibn Yasir yi jegewuñ sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci martaba walakinnahuma maziyataani xassahuma bihima duna nafsihi sallallahu alayhi wa sallam ñaari jagle la yoo xam ne yàlla may na leen ko muy Omar ak Ammar waleef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam فإن هاتين المزيتين نار ما يثابتان في حقتي صلى الله عليه وسلم لسخ التي حقيقة بيننت صلى الله عليه وسلم وهو الأصل الجامع تموي أصل تسان لنا قمن مودة جلمبول مديري وما كان عمر وعمار إلا فرعين من تعمر أما دون دار لدود أي بنقا في سقيك حقيقة المحمدية كونك فأظهر المزية في فرعيه دفع سينيالي ما يوي أي بنقاسم walam yudhiruha fi aslihi aljaami sallallahu alayhi wa sallam yàlla feeñaleewut may yooyu ci cosaanu mbir ya nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu ka maziyat ibrahima alayhi salatu wassalam may gi yàlla mayoon yonent yàlla ibrahima alayhi salaam li kawnihi awwal man yuksa yawma alqiyamati min jamiil xalq may ko mooy ki nga xam ne moom la ñuy njëkk a woddu ëllëg yawma alqiyam ci mbooleem bindee fii loolu buxaari indi na ko ci kitaabu ahadis al ambiya baabu qawlillahi taala wa taxasa allahu ibrahima xalila walam takun hadihi al madiya fi fihi sallallahu alayhi wa sallam te may googu yàlla defalu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu ka madiyati moussa alayhi salatu wassalam may gi yàlla defal moussa alayhi salatu wassalam fi kawnihi za lixyatin fil janna duna jamil xalqi moom mooy nekk borom sikkin ca àjjana wala wala mbindeefi te loolu yi tamit yàlla defu defalu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wa shufuqul rutbatihi sallallahu alayhi wasallam maaruf te nim leen rawee ci bi sallallahu alayhi wasallam lu ñëpp xam la noonu wa ka xikaayati asif <coughs> ibnu barxiya mooy boroom xam-xam boobu nga xam ne mi ngi nekkoon ak yonentu yàlla suleymaan alquran wax ko قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه كوكو موي عاصف ابن بارخيا لخيوان ديجنت مك سليمان فإنه طلب أن يحضر لديه عرش بلقيس يونتي على سليمان دفا ساكو ني تي ولا الكو ليغا خامني موي عرش بلقيس بي فقال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف مالكوي انديل بلا غي خيب دي خيبي صح loolu may la goo xam ne yàlla daf ko jagleel aasif te moom di yonantu mu xañ ko yonantam bii di suleymaan ngir uh, maqaamam bu kawe kon nag fa in ashkala al amru fi qadiyati aasif aasif wa suleymaan xaytu eh, kaana aasif tilmisu su mi demee ba nag ci diggante asif ak suleyman tañ xam ne asif taalibi suleyman la woon wa axada anhu l isma al azam ci moom la jële woon tur wu mag wi nga xam ne moom la jëfandiku ba teewal li fa bi ismi faala ma faal ci kattan ak tur wi suleyman joxoon ci la defee lam defe lam defoon Mawlana Cheikh ne wal jawaabu an hada ishkaal tontu ci ishkaal boobu lënt lënt boobu mooy anna maqaama saydina suleyman maqaam ak saydina suleyman alayhi salaatu wassalaam fi sufuufi rutbatihi wa uluwi darajatihi laa yaxtamilu misla hadihi almazaya mi ngi nekk ci dayob kawem kon nag <clears throat> laa yaxtamilu misla hadihi almaziya kooku yelloowut maziya yi maanaam xeeb na may wala yata'attaa lahu tadalli ilayha te itamit du jaadu muy wàcc ba yegg siwaat foofu ngir dem di jëli ay ay ay arash ci xef ak xip li anna maqaama nubuwati laysa lahu illa talaqi ma huwa fi lxadrati lilahiya min jami tajalliyat ndax maqaam ak nubuwa dara yellut ci moom lu duhut mu gàttandu li nga xam ne mooy bàyyeekoo ci péep uluhiya ci mboolem tajalliyaat yi nga xam ne zaati yàlla mu ngi jugee ci jëm yàlla ji aw sifaati yow la muy jugee ci melow yàlla aw asmaa yow la muy jugee ci tur yàlla yi aw fi'li yow la ci jëf ya talaqihi ala ma huwa alayhi mu daj mu gàttandu ko nam doone laa yaxturu bi baalihi an yugayyira tajalliyan min atajalliyaat du toq mukk ci xelam muy soppi benn tajalli ci tajalliyaat yooyu wàcc ci moom moo xam zaatiya la wala sifaatiya wala asmaa yow la fi'liya aw yugayyiru wala mu di ko soppi li ajli garadihi ngir bëgg-bëgg boppam waaridan wala muy soppi benn waarit minal waarida red bu aarida ci rot yi nga xam ne ñoo gongeekoo min xadatil xaqi ci péeb yàlla bi bal adabuhu fi maqaamihi subutuhu tegginam ci maqaama boobu mu taxaw mooy mu sax sax ngir mën a gàttandu li jami tajalliyaat ci mboolem tajalliyaat yi nga xam ne taabaqat garaduhu aw xaalafatu néngoon ak bëgg-bëggam wala mu wuuteeg bëgg-bëggam kon moom amul choix walidalika lam yakun min annabiyin xuruj an daairati al asbaab al xikamiya moo tax amul benn yonantu boo xam ne dina am capacité pour génn ci windeelukaayu sabab yi nga xam ne dafay windeelu ci xikmatullah maylan ila xerqil aada di jéng jëm ci yi nga xam ne mooy ay xarbaax xam nga asif ibnu barxiya lim def noonu xar baax la yonontu nag jomb na muy def xar baax yonantu mujiza lay def bokk tak karaama Euh, moo tax euh, li quwati kamalihim wa kamali adabihim ngir mat ak seeni kamal ak seen euh, kamal gu mat bi wa istigraqihim fi l ilm ak lab gi nga xam ne moom lañ lab ci xam biñ xam yàlla wa fanaa'i iradatihim fi iradatillahi taala ak jeex gi nga xam ne seen ak nam namm jeex na ko ci namm-namm ak yàlla loolu day tolloot waxu baay bi mu doon wax ni muraadi muraadul xaqi wal abdu kal sama namm-namm bi mooy namm-namm ab xaqu bi jàmbee ngi mel ni bindukaay xam nga ni bindukaay ku ko commandé wul du bind kon nag seen jeex ci namm-namm ak yàlla gi xatta la turidu illa ma araad ba duñ namm lu duhut lu yàlla namm wa ama al wasfu lahum wasfun zaati wa hada al wasfu woowule melo lahum ñeel na leen waaye melo la woo xam ne melo jëm yàlla ji nga xam ne istaqarra alayhi maqaamu moo leen saxal ci seen maqaama boobu fala yuzaxzihuhum an hada almaqarri tajallin du buuxanteeg ñoom ci benn ci saxuwaay boobu benn tajalli min a tajalliyaat tajalliyaat yi wa in azum ak tajalliyaat bi nu màgg màgg màgg li annahum ndax ñoom yonent yooyu fi hada almaydan ci boobule domaine qaa'imuuna lillah wala ci boobule terrain ñi ngi taxaw lillahi ñehel yàlla billahi ci yàlla raakiduuna fi haazal majaal ñu nekk ñoo xam ne ñoom seen dund yëpp dañ koy dund ci domaine boobu waaye mustaghriquuna ñuy lab fi nazari ilallah ci di xool ci jëmm yàlla ji fa qawaahum llahu bi quwwati yàlla dëgëralee leen kattanam wa asbatahum bi mu saxalee leen saxuwaayam wa taxamalu aba alxadarati ñu daal di gàddu coonoy péyab yàlla bi ala gaayat siqaliha ànd ak dayab diisaayam wa suubati maba ma mabani ma mubayanatiha ak jafek mubayana wuuteem li agradi nufus ak bëgg-bëgg bakkan walam yu yu baalu bi ma huwa duunaha tafaale wuñ li ko féetee suuf wa xaalul anbiyaay haada li mooy melokaanu anbiyaa yi wala boog wa xaalul anbiyaay haada melokaanu yonantu yi kama zakarna comme niñ ko tuddee min baadihim ci seen ginnaaw anil mayli ila xarqil awaid ci jëng jëm ci xar baax yi fadlan an fi'liha euh, rawatina nag ñu di ko def wala wëlees di ko jëfee maalam yu addihim ila xarqil aada fekk juralu leen ñuy dem di def ay xarbaax darurata isbaati risala wala maanaam dara jaralu leen ñuy def xarbaax lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la ngir ñu saxale ko seen risaala wa idaahi sixatiha ak leeral wér gi fi qulubil mursali mursali ilayhim ci xolu ñi nga xam ne ñoom lañ yónni ci ñoom fa yafaluuna ma yafalu min xiraqil awaayib ñuy def li nga xam ne Euh, maa yafalu daan nañ ko def min xiraqil awaan ci ay xarbaax qiyaaman bi maunati tasxihi risala ngir taxaw pour sonn rek ngir euh, wiral risala gi nga xam ne moom lañ leen yónni li tawaqufiha ala xiraqil aada ngir taxaw yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci xarbaax yooyu ashaahidu bi sihatiha nga xam ne mooy seede ak wéram wa hada al xiraq yooyu la xarbaax huna fii huwa almusamma fi istilahi almuslimin moom la ñuy tuddee ci istilahu muslimin bil mucjizati ci mucjiza kama ida farigu min isbaati comme ni nga xamee ni buñ demee ba jeexal ci saxal seen mucjiza far fartaqaw xiraqal fartaqaw fartaqu ñu daal di li nga xam ne moom mooy xarbaax ya ma lam yakun dalika bi amrin ilahi loolu nekkut ci loo xam ne ndigal ak yàlla la fa yabdunahu ñu daal di koy feeñal way lam yakun fi isbaati risala xar baax bu bokk ak feeñal sa risala ka qadaaya Musa alayhi salaam assalaasa comme ñetti eh, mbir yi nga xam ne moo xewoon ci yoon ci yàlla Musa alayhi salaam lu mel ni ba muy wax idrib bi ansaakal baxra dóoral sa yat wi ci géej gi idrib bi ansaakal xajara dóoral sa yat wi ci doj wi inna allaha yaamurukum an tasbahu baqara yàllaa leen digal ngeen rey baqara mu ne yetti xadaa yi ay mbiram yàlla la wa in lam takun fi isbaatil mujiza doonte ka nekkut sax loo xam ne dafay saxal ay kéemtaan haysu la tumkinuhu muxaalafatuhu ndax Muusa mënta mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigalal borom bi subhanahu wa mu ne nag wa amal awliya wëli yàlla yi nag ñoom fa ma maalu li xerati awaid illa li don fii nekkuñ fi di fi def ay xar baax lu duwut seen néew ak kon xar du ndàmm ñoom duñ ko def lu duwut seen néew ak kàttan an taxamuli abail xadra ci ñàkk a mën a attan coonoy péeb yàlla bi wa adami taaqatihim ak ñàkk kaw attan ba tey li suubati tajalliyaatiha ngir jafek tajalliyaat yi péeb yàlla bi am fa maalu ila xiraqil aada ñu daal di jeng jëm ci xarbaax ya tarwihan li arwaahim ngir noppal seen ruuxu min daxatatil waarid ci dooley waaridu yàlla boobu إبقاء على نفوسهم بدوام التمتع يسخل سن بكن كي سخكي بانيخ ببعض شيء من شهواتها كي لنكي أي بانيخم وهم معذورون يونك ني جيجل لن فإن الله عز وجل لم يمدهم بقوة الأنبياء يالا تبولن كاتنك يونون فيه ولذا لم يتنزل سليمان لفعل هذا الخرق سليمان واتشت دي دف خربع بو دف باي آصف نبار خيار والذي فعله آصف li aasif def nag subuutan ala maqarri maqaami alladi dakarnaaw loolu day saxal saxuwaayu maqaamaam bi nga xam ne tudd nañ ko léegi mu ne fa in qulta bu fekkee danga wax ni ida kaana hada maqaamuhu bu fekkee loolu mooy maqaam ak asif ibnu barqiya wala yarda li nafsihi bi hadihi almaziya te gërëmut ci boppam yooyu la may li mu mugayiratun li maqaamihi ndax dafa wuuteeg maqaamam fa limata dallali tale bi dalika min alxaadirin kon nag lu tax Suleymaan daa di wàcc ngir laaj mbir moomu ñi nga xam ne ñoo teewoon fa moom ci waliyu yàlla yi wal jawaab Mawlana Cheikh radiyallahu anhu tontu ci lool fi hada wal jawaab fi hada anna maqaamahu ma dakarnaahu maqaama yonent yàlla Suleymaan mooy liñ tudd ci ginnaaw mooy nubuwwatu walakin lamma kaana minhu alxaq alayhi fi mulkihi ba ko yàlla mayee ci nguuram gi an saxara lahu jamia xalqi yi tàggatal ko mbooleem mbindeefa mi kama qaala lahu fi xaqihi comme ni mu ko waxee ci xaqam yacmaluuna lahu maa yachaau min maxaariba wa tamasila wa jifaanin kal jawaabi wa qudurin raasiyaat ñu di ko liggéeyal lu ko soob moom yonentu yàlla Suleymaan min maxaariba ci ay mihrab muy ay jàkka wa tamasil ak i statue te wax nañ ne statue yooyu benn soxna bu mu takkoon moo ko waxoon dafa bëggoon ñu defaral ko ay statue ñu defaral ko ay statue statue yooyu juróolu ko jàmm moo tax bépp statue boo xam ne rek tabax nañ ko ñu di ko jaamoo yàlla walla ñu def ko muy ab xërëm fam nekk faaw manki manki nekk fa wajifaanin kal jawaabi wa qudurin rasiyaat lii yëpp yàllaa ko tàggataloon mu di ko def loo jinne yi ñu di ko def aasif nag min jumlati ma huwa musaxarun taxta xukmi yi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañu leen tàggat ñu nekk ci ron kilifteefu yonentu yàlla suleymaan alayhi salaatu wassalaam faqad kaana taxmiluhu euh, wa jaysuhu wa taqdifuhu masirata shahr uduwan wa misluha rawaxan moom <clears throat> ak jaysoom gi yëpp bokkoon na ci xar baax yi suleymaan daan def maanaam ñoom ñëpp daf leen daan yóbbu fañ war a xaree ji ci ci doxab doxab weer mu def ko benn xëy doxab weer mu def ko benn ngont loolu moo tax tasxiir boobu falima falamma kaana at tasxiiru lahu ba mu amee googu tàggat bi manzilati yadayhi ci wàccuwaayu ñaari ay loxom warij lay ak i fil haazal xalqi ci yooyu la mbindeef walam yarda tanazuli an maqamin sax suxira fi dalik te bëgguta wàcc ci maqaama boo xam ne dañ koo tàggat ngir loolu man huwa musaxarun taxta xukmi yi ci ki nga xam ne dañ ko tàggat mu nekk ci suufu kilifteefam moom Suleymaan yafaalu lahu maa yurid mu di ko defal lu ko soob wa haadihi min minnati lxaqi loolu dafa bokk ci may yi ko yàlla may wa qad waqaa lahu dalika bi iznin ilahi te yooyu muy mu doon def di ko sante dafa amee ci ndigalal yàlla laysa min garadi yi faqat duut ci càkkutéefam rek la ko doon defee wa qalbuhu saabitun ala maqaami yi waaye ànd li muy laaj man yaatini bi arshi ha qabla an yaatuni muslimin lam ko laaj laaj laaj xolam baa ngi sax ci yàlla xolam baa ngi sax ci maqaamam allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqq